الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ki ñu barakaatuh.
ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen baalu àq leen ko baal te di leen ndokkeel ci guddi ñu nekk muy ay guddi leer Euh, comme niñ ko tàmmoon defee rek euh, bunt bu xamante ni woy nañ ko pare ñu daal di ñëw daal di koy tënk ci lu gàtt ndax temps bi dafa dul maye ba mën ko yaatal bu baax Euh, démb nag ñu ngi jàngoon buntu juróomeel bi imam Bushayri yi doon ñu wax ci kéemtaan yi nga xamante ni yàlla joxoon na ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu koy lim dem ba ci biir ber buntu spécial mu jëgleel alquranul karim bi te alquran moomu mooy kéemtaan bi gën a mag ci nga xamante ni yàlla jox na ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam màgg gi mu màgg moo tax mu beral ko buntu spécial waaye su ma neexoon dama ko tudd ci buntu juróomeel bi rek moo tax Seydi Hadj Malick di wax ni nit ku nekk soo bëggee xam si cofeel Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn balance nga am boo ko mën a peesee muy sa diggante ak alquranul karim ku nekk soo xoolee sa diggante ak alquran nu mu mel xamal sa cofeel Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam poids bi noonu la toll dina alquran wal mizan taarif minhumaa hawaa'ij min aswaaq ko mu ko kon Seydi Hadj Malick loolu la ko tënk waxee imam Bushayri yi nag di lim kéemtaan yi ba egg ci alquran ber ko mu mel ni dafa jëkk saay rek am ku naan ko ak góor gi nag kéemtaan yi nga lim doy na ndax mënu ko jeexal mu ne daani wasfi ayaati lahu zaharat duhura naaril xira laylan ala alami mu ne bàyyi leen ma ak man li may melalee kéemtaan yi nga xamante ni yàlla jox na ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kéemtaan yi mu ngi feeñ leer nañ mu mel ni sawaray ku lay berndeel ci guddi lëndëm mu nekk ko montagne xam nga arab dañoo baaxoo woon sooy tukki euh, dem ci digg àll bi nga jëkki saay seen ci kaw montagne am sawar bu fa taal soo seenee sawara si nag da ngay xam ne fii nit a fa nekk su ko defee nga jàdd dem fa ndax mu mën laa berndeel mën laa ganale moo taxoon ñu doon faral di taal ci kaw montagne yi mu ngi mel instant yi sooy tukki ci diggante ville yi ci guddi da ngay seen montagne yi des fois nga seen ay lampe yu ndaw yu sori jamono yooyu fekkoon jamono yooyu la fekk ngay doxee sa tànk mun ngaa jàdd dem foofu ndax nga am foo xaw a am am ku la berndeel xam ne dafay leer nañ nee na loolu lu muy leer ni koy séenee ci guddi gi muy làmp wala muy sawara buy tàkk nee na leeru sayyidina wala boog ci alxuraanu karim ni mu ni mu ak kéemtaan Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu feeñee noonu la mel xam ne nëbbuwul ñëpp a ko ñëpp a ko gis mu ne fa durru yasdaaru xusnan huwa muntadimun wa lays yanqusu qadra ala mun al gayra muntazimin nee na wurus wurus euh, soo ko tegee fii de rafet na waaye soo ko soo ko soo ko nosee soo ko defoon saaru càq ci lay gën a rafet waaye wurus bi muy rafet rafet rafet nga def ko càq mu rafet teewul soo daggoon càq bi tamit day des di doon wurus di rafet ba léegi rek mu may alxuraanu karim téere bi rek alxuraan bi kese rafet na moo dàq wurus waaye ki koy jàng su do su koy tajwid day mel ni nga jël wurus daal di koy def ci benn càq ni muy rafetee noonu lay mel waaye teewul même soo def alxuraan bi kese kese tamit noonu lay mel wala nga firee ko benn firi muy kéemtaan Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo koy tudd kese nose ko def ko ay bëyit ñu koy woy ni muy rafetee mel ni wurus bi ñuy def càq soo ko woyul woon tamit teewul leer na nañ ñëpp xam ne teewul rafet na ba pare mu ne fa ma tataawulu amalil madihi ila ma fihi min karamil aqlaaqi wa chiyami comme kéemtaan Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn mënu koo lim ba mu jeex kon lan moo tax tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku nekk ku jug di woy woy bu gën a gudd woy bu gën a bu gën a rëy ngir di ko ngir ngir di wax jikko yi nga xamante ni moom la yàlla jox Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir wax ne rek kéemtaan dafa bëri kenn mënu koo dajal waaye ku jugee daal ci comp li nga mën a li nga mën a comp ayaatu xaqin min arrahmani muhdasatun qadimatun sifatul mawsuuf bil qadam bil qidami aaya alxuraan yooyu Seydi Bushayri di wax mu nekk ci alxuraanul karim aaya yi aaya yi dëgg la yu jugee ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala alxuraan dañ koy melal ñaar dafa am ñuy wax alxuraan muhdas la am ñu ne alxuraan qidam la mooy xadiim la alxuraan am nañu dañ koo sos am ñu ne déedéet alxuraan moo jiitu lépp mais nag am na ñaari mel yëpp imam Bushayri boole ko ci benn bayit kii ne alxuraan dañ koo sos lu yàgg lu wàcc mu ngi ko teg ci bi ko yàlla di wax yu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu lañ ci jot ak biñ ko bindee ci jamono Seydou Aboubacar daf koy téere kon loolu lu bees la waaye tamit moo jiitu moo jiitu moo njëkk lu tax parce que yàllaa ko wax de wax dañ koy dañ koy natt ci ko wax nit ku nekk tey suñ doon xool yàq sa yàq say parole say wax yéen a maas yéen a juddoon wala da nga judd rek commencé wax ci nit yàlla tamit moo xam kañ la sosu moo xam kañ la nekk ci la waxoon kon wax yi kon wax yu njëkk la wax yu jiitu la kon alxuraan boole na ñaar moo njëkku lépp moo njëkk lépp moo jiitu ndax day melal yàlla ndax moo ko wax waaye tamit lu bees la muxdas la ndax yàlla bi mu koy bi mu ko jox Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàggul bi ñu koy bind yàggul noonu kon mu boole ñaari melo yépp bu jógee ci sunu borom subhanahu wa taala mu ne lam taxtarin bi zamanin wax ya tuxbiruna anil maadi wa an aadin wa an irabi lam taxtarin alxuraan nekkul lu ñu lu ñu lënkale ci benn jamono ma di naan jamono yi jamono yi bi ñu nekk rek lay waxal comme li jëkk gaa yi naan ah téere yi day jamono raw na leen mais alxuraan jamono du ko raw jamono suy ñëw day fekk mu ànd ak moom ndax dalay wax li ñëwagul sax li paas dala koy nettali imaam Buseyri ne alxuraan kenn nekkul lu ñuy teqale ci nekkul lu ñuy yemale ci benn jamono waaye alxuraan dañuy dañuy xabaar ëllëg yow ma waxuma la adoon de mais ëllëg suñu faatoo ku nekk li ngay fekk ak li fay xew alxuraan dañ koy nettali mu mel ni film boo xam ne lay jox lancement bi nettali ñu lu passé lu mel ni giiro aad aad benn buur la woon bu mag boo xamante ni yàlla da ko mayoon pouvoir mu dund lu mat mille deux cents ans dund na ko amoon lu mat quatre mille doom amoon lu mat mille jabar ak pouvoir bi ko yàlla mayoon waaye heureusement wala malheureusement xam nañu koy waxee bi muy faatu def faatu doon kéeféer kon nguuram gi yëpp ak li mu rëy rëy rëy rëy rëy yëpp ak li muy gudd fan gudd fan yëpp teewul bi muy dee ci kéeféer la dee kon amulu ko benn njëriñ alxuraan nettali ñu loolu ndax bu woon ak alxuraan loolu duñ ko mës a xam ndax histoire la mu nettali ñu tamit waa Iram Iram tamit euh, benn dëkk la kenn ku ñu wax Shedaat moo ko tabaxoon dëkk bi euh, Iram dafa dafa dafa dégg ñuy wax ne al comme li alxuraan nettali ci aljanna aljanna day am nay dexu euh, meew am nay dexu lem am na lu nekk am na am na lu nekk te comme dafa am pouvoir am alal ju kenn amul mu ne man dinay toppandoo tabax lu mel ni aljanna mu daal di créer benn dëkk daal di koy tabax def fa ay dexu meew def fa ay dexu lem lu ne mu def ko daal lépp loo xamante ni lu lu lu rëy la mu def ko fa même palais bi da koo tabax mu nekk palo ay or ay jamaa la boole tabaxee ko palais bi léegi mu dem daal di jël royaume bi mu jiite woon mu mu jëli waa dëkk bi pour de pour indi leen ci li mu lu bees li mu tabax ndax day toppandoo yàlla nee na bi mu jëlee waa waa dëkk ba di ñëw bi ñu doxee borom xam fa nee na bi mu demee bi ñu dox di ñëw ba tolloo pour ñu egg dëkk bi mu tabax comme nouvelle ville bi pour ñu egg fa mu ngi tolloog benn jour ak bëccëg par exemple ay 24 heures rek pour ñu egg yàlla yónni malaaka malaaka bi lu mu def dafa ñëw di leen a yuuxu benn yuuxu rek wuub rek ñoom ñëpp ñu alko waa dëkk ba yëpp yëpp yëpp yëpp daal di alko ak nguuram gi ni mu doyoon yëpp ak alal jëkk yàlla ma leen yëpp benn yuuxu kese alak leen ñoom ñëpp loolu tamit alxuraan alxuraan moo ñu ko nettali daamat la day naa fa faaqat kulla mujizatin min annabiyina is jaat walam taduni nee na alxuraan day dafa sax ci ñun daa mat la day naa waaye aussi dafa kowe bépp muujis boo xamante ni yàlla jox na ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak mbooleem tamit muujis buñ joxoon yonent yi nga xamante ñoo fi jiitu woon ndax yonent yi fi jiitu woon ku nekk am na loolu yàlla joxoon ci ay kéemtaan waaye bi la yàlla di yóbbu bi ngay faatu da nga yóbbaale say kéemtaan alxuraan kes al Muhammad sallallahu alayhi wasallam kese la yàlla jox kéemtaan mu dem mu des fi muy alxuraanu karim bii ñuy jàng alxuraan day muhakkamaatun fa maa tubqiina min shubahin li di shiqaaqin wa maa tabgiina min min xakamin alxuraan dañu koo xereñe ma dañ koo defar ba mu xereñ ba amul lenn lu ci nit mën a sot wala mu wàññi ko ci dégg nga amul benn lent na tamit boo xamante ni bàyyi na ko àdduna lépp loo gis rek alxuraan tudd na ko moo xam nga sa xam-xam egg fa wala sa dégg bañ fa egg waaye wax na lépp dégg nga fa ma mesuba li di shiqaaqin wa maa tabgiina li min min xakamin wala koo xam ne da ngay jaay mën a werante jaay doon intellectuel lépp loo indi rek man alxuraanu karim moo la ko njëkk a wax bu yàgg yàgg yàgg te aussi bàyyiwul lenn loo xamante ni lu ñuy xereñe wala lu ñuy àtte la loo xam ne alxuraan àtte ko pare maa huuribat qattu illaa aada min harabin aadal aadi ilayha mulqiya salami nee na alxuraanul karim ku ko mën a déclarer guerre ah amul kenn ko mën a déclarer guerre alxuraanul karim ak sa ak sa noon bi nga mën doon ak noo mën a toll lu dul bi ngay delloo bi ngay dellu bi ngay ñibbi say ngànnaay yóbbaale woo ko mooy li ñu naan bi ngay dellu yóbboo say daal alxuraan ku ko de ku ko déclaré guerre ak noo mën a mel ak pouvoir ba mën a am tamit xamal ne sooy ñibbi doo yóbbuwaale say daal doo delloo say ngànnaay ndax doo ci am ndam raddat balaagatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jaani anil xurami alxuraanu karim balaaga bi nekk ci moom mooy retraite bi fa nekk moom day daawaa mu arid radat képp koo xamante dañ koy dañ koy contre mu arid mooy di di contre alquran balaa xam bi ko bi bi nekk ci moom rek moo lay delloo nu mu lay delloo imam bu jox exemple bu ndaw mu ne nit ki ànd ak soxnaam toog di waxtaan par exemple benn waaye jógee fële ci àll ba dañu commencé koo lëng di tap ni sa loxo ni nga koy fëlee soo amee fulla xam day daal di ci xaj nee na alxuraanu karim nit ki ñëw di ko jéem a contrer balaa xam noonu la lay noonu la lay noonu la lay toroxalee ba nga torox tot sa imam Bushayri ne laha maanin ka mawji lbahri fi madadin wa fawqa jawharin fi lxusni wal qiyami alxuraan day am na ay maanaa yu bare bare bare yu kenn mënul lim bu mel ni duusu géej géej soo ñëwoon taxaw ci tefes gi di lim vague yi da ngay lima lim boo sonn mujjee ñibbi rek waaye mënoo koo jeexal dégg nga alxuraan tamit maanaa yi noonu la bare moo tax mun kenn mënu koo jeexal mun ngaa tafsir alxuraan commencé ci baxara ba jeexale ci naasi nga yaakaar wax nga lépp fekk yow xaaj bi xaaja laaloo dara sax yow kon comme du si géej mënoo ko compter ni mu taaree nag ni mu taaroo ni mu rafetee aussi moo gën a rafet wurus ci taar ak ci ak ci ak ci xéeyam ak ci valeur fama tu addu wala tuxsa ajaibuha wala tusaamu alal iksaari bi sa ami alxuraan kenn mënul lim kenn mënul takk aussi ay kiimtaanam kenn mënu koo melal ak loo mën a bari bari bari wax tamit ak loo mën a ak loo bari xam-xam mënoo ko melal ndax daf bari qarat biha aynu qaariha fa qultu lahu li laqad zafirta bi hablillahi fahtasini neen alxuraan ki koy jàng day say bët dina dina ser mooy sa xool dina sedd lu tax parce que dangaa gañe loo gañe dangaa gañe ci jàpp ji buumu yàlla bu dëgër bi bi nga xamante mos a dog kon nag moyel ba mu dëgër imam bo neen yow mi am alxuraan man koo liir man koo jàng am nga buum boo xamante ni élection doon tàbbi sawar buum boobu mooy bi xam ne moo lay yeew moo lay jàpp doo mën a tàbbi ci biir kon buum bu baax bi daal da nga war ci njàpp mooy ci mu dëgër mooy alxuraanul karim imam Bushayri in tatluha xiifatan min xarri naari lava adfaata xarra lada min wirdiha shabiwi fekkee alxuraan da nga koy jàng ngir ngir lan ban objectif ragal dugg sawara imam Bushayri nee na sawara soosu nga ragal dugg day jàng alxuraan jàppal ne fayee nga ko sawar fe fayee nga ko ndox mu sedd guy boo xamante yow doo mos a lakk kon mooy soo jàng alxuraan objectif bi muy yàlla bañ laa duggal sawara jàppal ne sawara sa fay nga ko ndax doo fa dugg ka annaha alxawdu tabyaddu lwujuhu bihi min al usaati wa qad jaauhu kal xamami nee na alxuraan day mu ngi mel ni mbalku kaw sara xam ne xam ne ndox mi dafa weex tàll neex lool su ko defee nit ki nit yéeféer yi nga xamante dañoo ñëw wala borom bàkkaar bi nga xamante ni kanamam dafa dafa ñuul kukk ngir bàkkaar xam ne say bàkkaar dafa baree bare ba sa kanam ñuul kuk kuk kuk kuk alxuraan soo koy jàng day mel ni mbaal ko kaw sara bi nga xam ne soo fa duggee yow da ngaa mujjee weex tàll set wicc mel ni perkal xam ne amatul benn bàkkaar bu la topp alxuraan kon noonu lay def bàkkaar nit da koy effacé wa kasiraati wa kal miidaani maadilatan fal qistu min gayriha mi fi nnaas lam yaqumi alxuraan mu ngi mel ni yoon siraat yoon bu jub xocc ku ci topp doo réer waaye mu ngi mel ni balance bu bu yemaay xam ne soo ci bees soo ci peese doo ëppal doo wàññi waaye tamit képp ku mën a atte benn atte ci atte wu alxuraan tamit xamal atte bi nga atte jubul alxuraan kese mooy atte bu jub bi li des yëpp ay kii la laa taajaban li xasuudin raaxa yunkiruha tajaahulan wa huwa aynul xaadiqi lfahimi imam Bushayri ne bul mos a yéemu ci ku iñaan ki nga xam dafay xëy di gont yépp di weddi alxuraanul karim fekk li muy def nag te jaahulan day dof dof la xam nga muy kii dof dof la rek di jéem a weddi alxuraan di contre fekke moom mi weddi aynul ahaadiqil fahimi mooy boroom bopp la mooy ki nga xamante ni dafa muus ba pare moo gën a comprendre nen nekk intellectuel waaye il faut mu jéem a gara gouvernance c'est-à-dire waaw alxuraan bi fii alxuraan fii lii passé na ay jamono nag amoon ay temps am na ku doon wax ne alxuraan alxuraan dafa juum feek fii xaraf war a koon maas feek te xamul ne naxwu sax moom xaayida yi muy jël règle yi ci alxuraan la koy jëlee waaye nekkul alxuraan mooy jëlee ci ci naxwu moom kon kii su dee jàng nag ba sa bopp fees nga yaakaar ne kon ah war naa kuris alxuraan kon da nga xamul lu xew loolu nag jëf ji nit kooku di def xam def def ba gis boppam imam Bushayri nen lenn rek la ko misaalee mu ne xatun kirul ayna daw asamsi min ramadin wa yunkirul famu taamal ma i mina min saqami nit ki nga xamante ni say bët dafa wànnent mun nañu toog ba dëgg 13 heures 13 heures ñu génn fii jant bi ni fang ci kaw nga waan nent nga génn fii ñu naan jant baa nga ne nga ne déedéet jant amu fi dañ lay comprendre dañuy xam ne yow sa bët daa waan nent nit ki nga xam ne dañ koy jox ndox mu neex wala ñam bu neex bu ñu préparé ni ñu ko war a préparé tegal la ko yow nga ñam ne ah li aw saful dara neexul fekk yow booba dangaa feebar sa gémmiñ daa lewet dañ lay comprendre ndax dañuy xam ne yow sa gémmiñ moo lewet kon yow alxuraan fi mu egg ci daw yàlla defu ko ci yow kon ci gàttal loolu mooy bu buntu bi ñu ngi jéggal bu baax a baax boo xam-xam yi fi nekk te di jéggal yàq yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu